bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim allahumma callimnaa maa yanfacunaa wanfacanaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu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 mbokk yi ñu bokk sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu may fanaanuk jam ñu bokk ñaan ko yon nañu yàlla may këndaluk jàmm yàlla ngi fàttaliku ñu ngi ànd suñu tem bi nga xamante ne tem bu am solo tem bi nga xamante ne aqu wayjur ci doomam waaye aqu doom ci wayjuram la ci alquran andi waaye la ci yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam xanaa ñu doyloo rek la ci alquran andi mu bokk ci la ñu bur yàlla tabaraka wa wax ci suratul buur bi tabaraka wa taala mu ñu fay wax ne lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yashaa yaxabu liman yashaau inasan wa yaxabu liman yashaau zukuran aw yuzawijuhum zukuraanan wa inasan wa yajcalu man yashaau aqima innahu alimun qadir mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot buur yàlla tabaraka wa taala moo ngi di baaxe askanu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi mu di baaxee yow jullit bi yow mi di jaamam yow mi di jàngkatu alqur'aan yow mi bokk ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur yàlla mu ngi nii di la joxoñal xéewal yam la fi defal bokk na ci xéewal yooyu mënoo ko lim benk dajal waaye mu am lim la ci joxoñal moo tax mu ni la lillaahi ñeel na yàlla mulku samaawaati wal ard asamaan juróom ñaar ak suuf yaxuluqu mooy bind maa yachaau lépp lu ko sopp yahabu mooy may li man yachaau ki ko sopp inaasan ay doom yu jigéen kese wa yahabu mooy may li man yachaau ki ko sopp zukuran ay doom yu góor kese wa yahabu mooy may li man yachaau ki ko sopp zukura ay doom yu góor kese aw yu yuzawwijuhum walla moy boole zukuraanan ay góor wa inaasan ak ay jigéen mooy may ki ko soob ay jigéen kese du si boole góor mooy may ki ko soob ay góor kese du si boole jigéen waaye mooy may ki ko soob góor ak jigéen ci la ngay meññ wa yajaalu bi léegi bokk na ci kawti fam ak ci kàttanam ak ci man-manam ak ci xam-xamam mooy def man yashaa'u ki ko soob aqiiman ko dul denc soxna bay am doom kii du mën a denc soxna waaye kii day denc soxna du du am doom innahu naka moom yàlla alimun ki xam la la tax mu partager mbir yi ni mu ko séddali ni xadir ki ko man la tamit kàttan bi amul kenn ku ko am du gisaanekat du buxaaba du scientifique du philosophe bi ko xam xam-xam bi daal yàlla dong moo ko xam moo tax mu ne innahu li fi nekk moom yàlla yam la tëralal nii la mu séddale nii alimun ki ko xam la xam-xamam moo ko yore xam mu séddale ba mu séddale lii mu la wax nii yow yonent bi yow jullit bi yow jàngkatu alquran bi xam-xam boobu du kenn ko yore ku yàlla waaye xadir ki ko man la tamit joxu ko kenn ka defal yàlla ka man moo ko moo yore kattan bi ni moo tax moo ne la bi mala la séddale nii innahu naka moom yàlla alimun ki ko xam la qadir ki ko man la waaw moo tax mu tëjee aaya bi innahu alimun qadir ba tax na xiiwal boobu mu may yow doomu aadama bi yow julit bi doom yu jigéen kese walla doom yu góor kese wala mu mélanger la doom yu góor ak doom yu jigéen nanga nga jël loolu la yàlla may du lum la jaay du loo jënd du lum la lebal nanka delloo yàlla xamal ko yàlla moo tax yàlla di ñu wax bi léegi bu ñu demee xool ci suratul ahqaaf buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu joxoñal ne bokk na ci xéewal yamu xéewalal doomu aadama bi rawatina yow jullit bi xéewal yooyu bokk na ci mu ne la wa wassayna al insaana bi walidayhi ihsaanan man yàlla maa dénk doomu aadama ñaari wuyjur ngir mu rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar lu tax yàlla dénk ñaari wuyjur kii di góor kii di jigéen ñu mel ni yow ñu mel ni nanga mel yàlla ne la nag ndénkaane boobu mala dénk ñaari parents yi nanga rafetal jëmale ko ci ñoom rafetal bi nag mbokk yi nañu leen fi taxaw tuuti rafetal ba yàlla namm ñu di ko jëmale ci suñu ñaari parents yi bokk na ci rafetal yooyu ñu war a rafetal jëmale ko ci ñaari parents yi ñu bañ leen beddi bañ leen bedd ñàkk leen bedd ci dikkuwaay ngalawaay ki la meññ nga dund ak moom bi nga nekk tuur tànk ana lan nga fi war a mel ana lan nga fi war a am la tax nga bàyyi ko fam la meññee nga ne yii yaay dangaa mënal sa bopp nga ne yii yaay dootoo dëkk ak màggat te màggat yooyu noonu ñoo nangook dëkk ak tuut tànk ba nga doonoon màgget yooyu ñoo nangoo dëkk ak tuut tànk ba nga meloon ngay taq ñu di la fomp ngay taq ñu di la defar nga mel melokaan boo xamante ne buñ la ko doon wax sax di am sañ-sañ bu toll ni taf gémmiñu ku la ko doon nettali ku lay nettalil ba nga nekki tuut tànk caprice ya nga làmboo woon nekkin ba nga nekkee woon melokaan yaa nga nekkee woon tey nga màgg ku la koy nettali sax di nga am audace bu toll ni nga jil sa loxo taf ko ci gémmiñam ngir mu bañ kaa wax yaa toll na nga tollu tey yow xale bu jigéen bi yaa mel na nga mel tey yow xale bu góor bi nga ne màgget yooyu dañoo naqaree dëkkal nga beddi leen jàmbu leen wor leen dem dëkk sa apartement donte bi nga doon tàqale ko ñoom sax buti anamu tàqale ko win bi sax dafa rafet ñu mën na waaw ñu mën a wax waaw ñu mën ko cautionné war koo valider waaye paay dañoo naxari dëkkal quoi yéen def ngeen seen temps quoi man damay dem def sama jamono nga dem làqu foo xamante ne kenn du la fa fekk ñu nga bokkal jëmuwaay ñoo la fay fekk yaa layta ñu doon ñu baax waaye bu ñu nekkee safaan ñu baax musiba dong ngay xallil sa bopp ngir mu di la fekk ci foofu nga nekk lu teey nga nekk say wuy jur xale bu góor boo dëkk say wuy jur loolu dalay protège xale bu góor boo say wuy jur loolu dalay aar xale bu góor boo nekk say wuy jur sa nekki nag say wuy jur dalay protège dalay aar nga bañ a bedd say wuy jur bàyyi leen fu ñu nekk ngay dem louer say appartement bu dee day nekk sax na nekk anam bi nga xamante ne anam bu ànd ak la islaam tëral la nga xamante ne doo fi nekk di làqatu doo fi nekk di dugg di génn say waajur yi dinañu am accès ci yow say waajur dinañu am accès ngir ñu di la fekk fa nga nekk anam boobu sax mën nañ koo comprendre par rapport ak dëkkuwaay bi nu mu mel waaye ñaak rafetal ba yàlla di la muytandikuloo lam lay andil si ay conséquences kenn na munu koo valider kenn na munu koo xayma kenn mënu koo xalaat ah te moo ne yàlla moo la gën a xam bu dee bu dee dangaa nekk ak say ñaari wuy jur yàllaa la gën a xam kaaraangi jalay muur nga nekk say parents ci bi nuñ lay garde ci sécurité bi ngay nekk moo ëpp nga dem làqu fa sa waajur nekkul boo fa nekkee sax ci anam bi nga xamante ne islaam noonu la ko tërale bi léegi yang ci sa kaaraange ñaari wéyjur waaye boo fa nekkee ci sa bànneexu bakkan bànneexu bakkan nag du diri nit yóbbu ko fenn fudut ci musiba waaw moo tax yàlla avertir la wa amma man taxa wa aathara alxayaata addunia fa inna aljahima hiya almawa képp koo xamante ne dafa beew koo xamante ne dafa fuy koo xamante ne reewaande dab na ko yëg boppam dab na ko ba mu jiital banneexu bakkanam mu doon la koy wommat di ko jëmali fu ko neex sa bànneexu bakken wommat la ne la ah ñaari màgget yi moom dëkk ak ñoom loolu tarde la waaw da tardel sa bopp ñaari màgget yi dëkk ñoom loolu tardement la sa gaañi sa xarit yi nouveau connaissance ya nga am nitu personnalité ya nga am buñ la fekkee nga dëkk ñaari màgget yi lañ lay wax ak yow tey fa nga toll moo ne ñaari màgget yooyu noonu ñoo tax ñooñu xam la boo jaarul si ñaaru màgget ñooñu ñooñu nuñ lay xamee buñ lay xam tamit si anam bañ lay xame du wut day wuteeg ni mu nekkee nii la nga doon tey la tax nga doon la nga doon la tax nga mel la nga mel ñaari màgget yooyu ñoo doon sabab nga mel la nga mel lu tax tey nga gedd leen lu tax tey nga di leen beddi lu tax tey nga di leen jàmb xanaa déggoo yàlla mu ne la wa wasayna al insaana ñoo dënk doomu aadama bi waalidayhi ci ñaari waajuram waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen ndénkaane bañ la dënk ñaari waajur yooyu mooy nañu rafetal jëmale ko ci yow waaye yow it na rafetal jëmale ko ci ñoom de moo tax mu ne ihsaanan nanga nga rafetal jëmale ko ci paa bi na rafetal jëmale ko ci meer bi yàlla ne lu tax nga war a rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar ndax ndénkaane boobu keroog ba ma leen ko dénkee dama ci wóolu yaay ji yaay ji laa ci gën a wóolu moo tax yàlla ne hamalatuhu ummuhu yaay ji moo ko ëmb moo ko yenu kurhan ci coono wa wada'tuhu mu yebbi mu imbi ko kurhan ci coono coono ji nekk ci ëmb ki ko ëmb rek a ko xam coono bu nekk ci jur ki ko nekkee rekk a ko xam moo tax yàlla mi ko ko teg moo gën a xam ki ëmb na mu ëmbee coono ba ko fay fekk premier mois bu ne sax deux mois ngay nekk ak ëmb boobu nga taxale ko moom naam waaye nga ëmb ko premier mois yaak moom deuxième mois coono yaak moom troisième mois coono yaak moom ba septième mois weer fan weeru fan benn weer deena fanweeru fan ñaari weer bi deena fanweeru fan ñetteelu weer bi deena fanweeru fan ñeenteelu weer bi deena subhaanallah fanweeru fan ba huit mois fanweeru fan ba neuf mois subhaanallah fanweeru fan trente jours ba neuf mois yàlla mi fi dàq calcul mu ne wa wadaatuhu kurhan mu taxale ko ëmb boobu ci coono xamluhu ummuhu kurhan xamalatuhu ummuhu kurhan yàlla nee na yaay ji daka ëmb ci coono wa wadaatuhu kurhan mu meññ ci coono wa xamluhu wa fisaaluhu talaasuuna shahran boo boolee weer yamu ëmboon ak moment bam ko doon nampal ba mu di ko feral boo kimili lépp mu jox la trente mois fan weeru weer waaw yàlla nee na talaasuuna shahran trente mois la la loolu yëpp kose ngir yow du tànk bi nga nekk ak say wuyjur rawatina wuyjur bu jigéen waaw léegi yàlla nee na boo tolloo sa diggi doole lala la war ci ñaari wuyjur yooyu yàlla lool lañ ñu bëgg wax ci nii ci téere alquran ci suratul ahqaaf yàlla ne hatta ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sana xale bi góor beeg xale bu jigéen bi tollu nañu seen digg doole tollu nañu seen digg jones ñu am karanta lañu la war a wax mooy qaala dañu war a wax ne rabbi ay sama boroom awzi'ni yàlla nga ma wërsëgal an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ma sant la ci xéewal ba nga xéewalal tànnal ma wayjur bu góor ak wayjur bu jigéen ñu tette ma ba ma toll nii waaye nag wa ala waliday yàlla nga ma may tamit ma doon kii delloo njukkal samay ñaari wayjur yi waaye yàlla nga ma may an amala saalihan ma doon kuy jëf-jëf ju baax ba nga digle dama fekk fa sama papa mu di ko def ak sama yaay ma fekk samay ñaari wuyjur yi teg seen tànk fa leen yenantu bi ne lii la yàlla wax ne na ngeen fa teg seen tànk ma gën si àddina fekk leen ci loole ma fekk samay ñaari wuyjur yi ñu doon jullit ma doon jullit ma fekk samay ñaari wuyjur ñuy tudd baatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ma nekk ci a ah, ma fekk samay ñaari wuy jur lépp luy kàddu ju baax lañuy génne seen gémmiñ ma yore ci seen keppaar ci anam woowee musumaa dégg sama pàpp muy wax kàddu bu ñaaw ci gémmiñam bu koy wax tamit di ko wax sama kanam musumaa dégg sama yaay muy génnee baat bu ñaaw ci gémmiñam bu dee sax da koy wax di ko wax sama kanam mu juddoo ci keppaar bi ni mel yàlla may ma ma sant xéewal bi ma xéewal tànnal ma wayjur bu góor ak wayjur bu jigéen ñu tette ma seen keppaar ba ma toll ni ma toll ni waaye yàlla may ma ma delloo njukkal sama ñaari wayjur yama taxawee taxawaay bi ni mel gàcce gaalaama sama ñaari wayjur waaye yàlla ma lay sant mboolim xeetu cant yu kawee yu matale ñeen nañ la yàlla wana amila saalihan yàlla nga ma yenkeewal nga wërsëgal ma ma doon kuy jëf-jëf ju baax tarda jëf joo xamante ne dinga ko gërëm dinga ko accepté te di nga ko validé fa yow was lii fii durriyati ah yàlla maa ngi ni di waaja am njaboot maa ngi nii di waaja am njaboot maa ngi lay ñaan bu ma tolloo si am njaboot yàlla nga ma yiwinalal yàlla nga doon yàlla nga def sama njaboot ñu doon njaboot ñu mucc ci loraange seytaane nga ne ko inni tubtu ilayk ey yàlla maa ngi lay ñaan jébbal naa sama lépp fa yow yàlla tuub naa coono ya ma rëccale tooñ ya ma ko ci sa jëmm ji yow yàlla tooñ ba ma rëccale jëmmale ko fa yow yàlla ma koy tuub yàlla nga ma jéggal waaye yàlla nga ma jéggal maa ngi tuub la ma la jëmale ko si ma ñaari wuy jur waaye nag ah li fi nekk mooy wa inni man sa jàmbi de minal muslimin jibbal naa sama bopp ci sa lépp li nga atti ci man jébbal naa sama bopp fa yow yàlla ci mboolem la nga atte ci sama jëmm ji yaa atti sama jëmm ji nga tànnal ma wayjur bi ni mel ah nu munti nekk daal jébbal naa sama bopp fa yow yàlla ci atte bi nga atte fa man ci lang ma tànnal wayjur bi ni mel muy bu góor muy bu jigéen waaye nag jébbal naa sama bopp fa yow yàlla ci keppaaru ñaari wayjur ya nga atte si man ngir ma meññee foofee ah yàlla jébbal naa sama bopp ci àtte ba nga dogal ci man ci keppaar ba ma yaroo waaye yàlla tuub naa jébbal naa sama bopp ci yow ci àtte bi nga àtte ci man ngir ma jëf-jëf joo nga xamante ne jëf ju yiw ya nga nangu la kon ma lay ñaan waslih li zurriyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin ndigam lii moo war nekk ñaan ba nga xamante ne yow doom bi lii nga war a ñaan gannaaw bu la yàlla dénkee ñaari wuyjur kenn ki di wuyjur bu góor keneen ki di wuyjur bu jigéen kon lii nga war a mën a nekk ak ñoom gannaaw buñ la xamlee ñu jàngal la wan la yoonu siraatullahi al mustaqim lépp li nga xamante ne mooy yoon ba yàlla rëdd mu doon yoon bu jub xocc jëm fa yalla buur bi tabaraka wa taala mbokk yi bokk na ci xadis ba ñëw ci lay firnde aaya bi jëlee nañ xadis bi ci abi hurayrata radiallahu anhu qaal jaa rajulun ila rasulullahi sallallahu alayhi waay de moo ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis bu abi hurayrata solo yal na ko buur yàlla gërëm mu ne ko yaa rasulallah yow mi yàlla yónni man axaqu naas bi xusni saxaabati ana kan moo yey ci nit ñi ma rafetal jëmale ko fa moom qaala ummuk yonent bi ne ko sa moo si njëkk a yey boo doon tànn ki ngay rafetal jëmale ko ci moom ci nit ñi sa ngay njëkke summa qaala man gannaaw si waa ko kan qaala ummuk yonent bi ne ko sa yaay bi léegi qaala summa man waa ji ne ko ginnaaw sama kan qaala summa ummuk yonent bi ne ko sa yaay ba léegi ñeenteelu yoon bi quatrième fois bi la ko waaji ne qaala summa man gannaaw si kan qaala summa abuk gannaaw si sa pap bi maanaa waa ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko anakkan ci nit ñi moo gën ci ki ma raw war a rafetal jëmale ko ci moom yonent bi ne ko sa yaay mooy ki nekk ci njëlbeenu nit ki nga war a rafetal jëmale ko ci moom waa ji ne ko gannaaw si kan yonent bi ne ko sa yaay muy ñetti yoon ñeenteelu yoon wi la ko yonentu bi ne summa abuk ginnaaw si sa baay kon yaay am na ci doom ñetti yoon ci àq ba mu wara a rafetal jëmale ko famoom gannaaw si wayjur bu góor daldi am ñeenteelu palaas bi waaye teewut ne bul déggee xadis bi ne li ma am bu ma koy jox sama yaay laa gën a war a mën a ëppale sama baay déedéet kenn du déggee noonu xadis bi de contexte xadis bi waa ji kaan ba mu dikkee moo tax yonentu bi tontu ko anam bi ni mel waaye yow miñ ko waxul bul déggee ne ndegem yonentu bi lii la wax waa ji kon man nit nii laa koy doxalee naa mun nga ko doxalee noonu waaye nag bu ci nekk di ko wone ci anam bi nga xamante ne waajur bu góor bi da siy gis boppam waaye yow it waajur bu góor bi na nga jàpp ne kii di sama doom boo gisee muy doxalee nii amaana texte ba yonent bi wax waa jaka doon laaj anakan moo gën a rafetal anakan moo gën a yey si nit ñi ma rafetal jëmmale ko ci moom moo tax sama doom bi di doxalee nii yow it nanga ko comprendre si contexte boobu waaye yow waajur bu jigéen bi tamit nanga nga bokk ak sa borom kër la takkandeer bi di andi ngir mu di la ci jox la nga war a uppalee borom kër gi gisuloo moom lañ ko tuddee mooy borom kër gi mooy borom kër gi ci kilifteefam nga nekk yow soxna si yow doom bi ci kilifteefu paa bi nga nekk kon mooy kilifay kër gi kon nag na ngeen ko jox ak xam ci anam bu ngeen ko war a mën a defe mu bañ a nekk xeebeel walla ràññeetle wala distinction bi nga xamante ne kenn ku nekk da ciy gis la nga xamante ne mooy ah xeebeel bu mu nekk anam woowee mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ñu di leen di fàttali ne rek ñu ngi ci jiin ci bés te mooy yowmul jumaa bisu àjjuma bés bi nga xamante ne la nekk ci bés bi ci ay xeetu ngéneel kenn mënu koo naataable kenn mënu koo xam kenn mënu koo wax ba nga ko dajal waaye xanaa rek dafa fekk ne ñu doyloo ci rekk ay ngéneel ya nekk ci bés bi mu nekk ngéneel yi nga xamante ne mënuñu ko waxtaanee ci waxtu su gàtt yan ñu cirale nii waaye bokk na rekk ñu ne ngéneelu bés bi mu nekk ngeneelu yowmul jumaa mu di bés bi nga xamante ne mooy sango yu bés yi muy bés bi nga xamante ne amul benn bés bu jant bi di fenk bu am dayo ni bés bi ba tax na yonent yi sallallahu alayhi wa sallam mu ñuy baaxee ne ñu bokk na ci ngeneelu bés bi ñu bari lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa xeetu salaatu ala nabi lañuy def ñu julli ci moom lu mu gën a doyul lu mu gën a bari ñu bindal ñu su yiw ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañu ne ci maana xadis gën ci bés ya bi di fenk mooy bésu arjuma kon fa akthiru alayya min alsalaati fa inna salaatakum macrudatun alayya na ngeen bëri la ngeen di julli ci man yonent bi na ngeen bëri la ngeen di ñaan ñaan bi nga xamante ne yàlla da koy soppi mu doon kadoo ba ngeen may yónnee ndax yàlla buur bi tabaraka wa taala moo njëkk a def li ni mel te mu diggal ko way gom yàlla ñi ci suuratul ahzaab bu ngi demee xool aaya 56 dinañ fa fekk qaala allahu subhaanahu wa taala buur yàllaa ngi nii di addu buur bu nga xamante ne mboolem xeetu cellaa nge ñeel na ko mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi naka ak malaakaam yu tedde yi ñoo ngi jokk di ñaanal yenentu bi kon yaa ayyuha alladina amanu yéen ñu yàlla sallu alayhi na jokk fa moom bi ngeen ñaanal ko wa sallimu taslima te ngeen ñaanal ko yiw bu ànd ak jàmm suratul ahzab qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenentu bi tamit wax na ko ne man salla alayya wahidatan képp ku julli ci man benn yoon une seule fois sallallahu alayhi asara yàlla dina julli si yow fukki yoon boo julli ci yonent bi masalan nga ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin nga wax ko benn yoon yàlla dina la bindal dina la ko fulandil mu nekk ci sa jëmm ji yiw bi nga xamante ne dinañ ko multiplier ba mu mat fukki yoon boo ko waxee ñaari yoon noonu boo ko waxee fukki yoon noonu ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu doo leen di julli ci man yowmul jumaa na ngeen bari la ngeen di julli ci man di julli di wax ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin ndax mu ne ñu fa inna salaatakum maarudatun alayya seen julli ñaan boobu ngeen may ñaanal yàlla buur bi tabaraka wa taala daf ma koy yëggee daf ma koy jox doy na rek ñu ne yàlla ak malaakaam yi dañuy bokk di julli ci yonent bi kon bu ñu ko yàlla sante ñu nit amuñu dara lañu war a def lu dut ñu def li mel ni lañu yàlla santaane moo tax mu woote ne ñu yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi wa sallimu kon ñu ngi naan allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka hamidun majid mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabi'uuna ahsanaha allahuma aminna fi awtaanina allahuma aati nufuusanaa taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wulata umuurina baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani al'aziim wa nafa'ani allahu wa iyyaakum bima fiihi min al-aayaati wa dhikri al-hakiim